përëm bi lay yebbi lay njëkk a yebbi përëm boobu nag moo woon troisième candidature bi moom la Macky Sall yebbi mu desoon mu ne léegi naa doxaat tuuti bu dee attanu ma mbir yi su yebbiwaat la lay yebbi wurus bi lay yebbi parce que jamaa gi ëpp valeur ci moom su ma koy delloo si suñu situation bi Macky Sall dafa amoon problème troisième candidature am problème mu candidature Ousmane Sonko.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 ñu tëj sa kër boo dee génn dañ lay fouiller fouiller sa oto toog na lu mat ay fani fani fan ci fekk baccalauréat bi jege na ñu tëj fii bañ ne kenn du génn ci sama kër ba mënul dem jàngi su dul woon waa école am ñu jóg bloqué cours yi ne tant que suwaay bu Sonko ñëwul jàngi si duñ ko duñu duñu bàyyi mbir mi peut-être duñ ko doon bàyyi mu dem préparer examen fitna googu nga teg ko ab xale buy def examen ci jamono jooju moom ana njabootam ndax Amadou Sall dafa gën sama doom man ma ngay yéeg avion di jàdd fii di dem fële di dugg ci banlieue bi naan day dem recruter ay nervi lu ko neex mu ngi koy def ci réew mi est-ce que moom dafa gën sama doom te lépp nag ci alalu réew mi lañ koy defee jamono jooju ana soxnaam mu ngi dox ay soxlaam man ñu bëgg ma koo tere sama famille démb ñeenti fan mu ngi ni amuñu wifi ci kër gi démb waa Free ñu woo leen ñu ñëw ñu téye leen fële commissaire bi ne ñu dugg ci sama kër pour ñëw def réseau bi daloon nañu keroog ci plombier bi dal nañu ci maçon dal nañu ci ku ne ñun duñu dugg ci kër gi pour ñëw repare ngeen jàpp ni loolu jaadu na bu ñëw ñu wootee ñu ne dem leen comme bañ leen ngeen dugg ñu ne ñu vérifier leen li vérifier li bi ñu vérifier dañoo dem ba ci biti gis ni ndekete fil bi câble bi dañ koo dagg ak ak si wala paaka xam nga loolu sabotage waaw pression yoobu ak fit boobu nga teg ko sama famille loolu su dul en lan la doon koo xam ne bu ñu tuddee turu Ousmane Sonko sa kanam sax ngay bëgg a wàccu waaye gis nga en du lor ke nga ayir foo gis kuy dund en rek moom la en nga di lor moom lay détruire ñu ngi sant yàlla ñaareelu sentiment boo xam ne Macky Sall a ngi koy dund te mu nar a andil Sénégal jafe-jafe yu rëy mooy li tubaab di wax orgueil mooy rëy